quand la question du dialogue est arrivée je ne parle même pas du position de Yewwi parce que ba léegi Yewwi askan bi waxagul mais parti bu nekk da nga expliquer sa sa position ñun on a exprimé notre position Khalifa Sall a dit ce qu'il en nee na il n'est pas contre le principe du dialogue il n'est pas pour la chaise vide le contraire moo doon jaaxal Khalifa Sall mënul nekk au cœur du régime socialiste fekkee ba ñuy ba ñuy ànd ak Abdoulaye ba ñuy def ay gouvernement d'union nationale nekk contre le dialogue ce n'est pas Khalifa Sall mu nekk consultant en élection en démocratie wër adduna bi di liggéey di joxe ay conseils di liggéeyal Nations Unies di liggéeyal Banque mondiale di liggéeyal di joxe ay conseils partout notamment en Côte d'Ivoire liggéey seen élection yi gis fi mu commencé fi mu dem ak fi mu mujj ne Khalifa Sall mooy taxaw professionnellement ne il est contre le ce n'est pas possible